Guiro Séras dem na ci arde ba dellu suwaat Guiro Séras a ngay dellu gannaaw Nokia ngay dox ci kawam Guiro Séras Nokia Guiro wàcc na ba tolloog moom Nokia cokkaas na léegi nokaas gi Nokia Guiro Séras ñooy noonu Guiro moo ngem moo ngem lu bëleli tekki moo weex bi yooyu yëpp wut buntu la daw na jël ko jëli na tànk jël na tànk ba Giro da koy daan daan na ko wala déet daanu ko war na ko ndombo doo ci génn Nokia doo ci génn Giro daa mën a bëre Nokia doo ci génn doo a bëre Giro war na ko ndomba war na ko ndomba xoolal Nokia Giro war na ko ndomba Nokia bu génnee ci lii ma xam ne ndaanaan la ci bëre lii oh, bu ma ko yaa ma xam ne ndaanaan la ñoo sa xam na penalty na dama koy war ndomba bu baax Ousseyn gën a jàpp de gën nii mu ko ndomba wóorut à ma moment Nokia mun naa génn en tout cas quatre am na wala déedéet amagul ba tey en tout cas tant bi ba léegi mu gi ci kaw giroo na fi mu féete Nokia bu doon maay moom Ousseyn damay génn saako yi damay fexe raam parce que saako yi jege na ma génn jàmbaar dawul dafa wuti doole giroo na bu doon maay moom damay def rotation gën a jàpp bu baax. waaw mel ni mu ngi lay dégg téye ko bu baax a baax a baax bañ mu rëcc parce que lii penalty la ci làmb. mën nga ko am da nga koo war a exploiter. jël séance Nokia. la nga wax loolu la Giro bëgg a def gis nga. gis nga dama la waxoon Ousseyn. gis nga da koy gën a da koy gën a jege. parce que jege boobu mooy avantage am. Nokia. Giro daan na ko. Giro daan na Nokia. daan na Nokia. Giro daan na Nokia. Giro séance daan na Nokia. Giro séance daan na Nokia. Giro séance daan na Nokia. Giro séance daan na Nokia. jugal ci koom Giro daan na ko. Giro séance daan na Nokia. jël ko Giro.